المصطفى ومرجنا المولى بأصحاب صحبه seeru yaa gën ñu rëy ña daan waxtaane sakk nga seeni kam moom Serigne Touba ñu ni seeru moo ci gën ñu rëy ña ñu daan waxtaane sakk seeni kam samaam bu jàppee ko tuutee tuuti bay toll ni gaseen mu soppi ko ak tukkal gu rëy gu rëy yu jigéen samaam bu jàppee ku daan xaaraan akay sol sagar yu bon mu jébbal ko dagga ki baraaye mu gën samaam bu jàppee ku daan xaaraan akay sol sagar yu bon mu jébbal ko dagga ki baraaye mu boolee gën bu jàppee ku ñuy ku daan mooy yàlla ak yónneenam ba nag mu leeral digganteem ak boromam nu forkotin kon kilee ma te jébbal mbir mu yar waane waa ngi nii te ngooy naa ci jébbal naa ko léppati fawu man sëriñ bi bégal sab xol di sant yow ku yàlla bégal day bég te yàlla bégal na la ndax sa maam ku koy def moroomit xam na xel ni moo ko man lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la mbàkkee ndax ku noot gaynde not segg ak ma fër dàq ñay mu daw du soo wokki boy noppil te wey yàlla gis na la sëriñ bi ñu ngi lay siyaare lii day tegtale nii li ñuy def neex na la marchandise danga koy yóbbu fa ñu koy jaaye waaye fa ñu koy waxaalee ca gën nag xamuñu leneen lu dul ni bëgg sëñ Tuubaa xasida yi moo ni ci muy Cheikh Moustapha mum Alaaji Baara maa sama doom yi suñu marchandise mooy xasida yi sëriñ Tuubaa yi xasaay di sëriñ Tuubaa ndëndum buur la kenn du ko tëggal baadoo la jataay bi nga toog mënoon ngaa wane ne damaa yàkkamti mënoon ngaa wane ni li ngeen di def mitti na tey dañoo am jataay yi dem waaye tàngalu la waxtu wu ñu daanee suñu kàddu kuy jàng ku ne yaa nga yëngal sa bopp di ko wan ni ko li ngay def yëg naa ko. kon dañuy bàyyi kàddu yi ak sëñ Mun Njaay chef de village di lépp sëñ Moustapha Mbacké mu baaxoo lool di jottali kàddoom ñu maase déglu ko rek. mu jotal ay kàddoom. dañ ko sëñ te sàllalu moo tax ñu ni sëriñ baa ngi lay nuyu waaye moom sa doom la sab taalibe la sab xarit la sa lépp la sëñ Moustapha di wax ni yow day sa digganteek moom bir na ko ni du diggante boo xam ne bii diggante bu nuy lijjanti la walla diggante boo xam ne bii dañ cay doxale dara lu dul diggante boo xam ni mas na ko waat ci alxuraan mi nga xam ni moom la suñu borom wàcce ni ku waat ni seen diggante lu dëgg la lu wér la danga wàcc sëñ bi di wax ni yow qualité yi nga xam ni moom la la yàlla booleel nga am ko bu la sëñ Fallou jurul woon it da dem ndax gëm nga sa bopp bëgg nga nit xam nga ki nga doon. ba loola amee ba noppi nag nga gëm ni sëriñ Fallou la jur ci muy lu wér nga liggéeyal sëriñ Fallou ndax liggéeyal sëriñ Fallou mooy euh, toobab sëriñ Fallou bi dafa yaatu te moom ci boppam moo daan wax naan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te loola ku xam sëriñ Abdoulaat xam ni loola ma nga ca kon soo tànnee bis ci at mi ni jagleel naa ko sëriñ Moustapha nee na loolu lu mu yëg la lu mu xam la ndax ku ne xam ne ne yow moo ci lu bëree bari ba yu ci bari bari da nga koy battale ak di ca dox ak di ca yónnee waaye bis bii nag moom yaa ko fonkal sa bopp tànn ko fu mu la mën a fekk loo nekk da nga ko bàyyi ñëw defal ko ko boo ñëwee danga fi fekk da nga ànd ak euh, ñi nga xam ni ñoom nga bokkal sëñ Fall. doy na sëkk ci wane ni ñoom ñii kat benn lañ doom doomi suñ fal yëpp benn lañ. ba tax na kenn ku ci nekk fenn fu nekk boo toogee tuuti da nga fa gis ñeneen ñoo xam ne ñoo bokk suñ fallu te dara waralu ko mooy benn goog ak ànd gi ak déggoo gi sëñ Moustapha nag mu ngi santaatit ci wàllu ñi nga xam ni yàlla dogal na ñoo bokk alaaji baara te nga xam ni ay nawleem lañ ñoom it lépp loo xam ni yàlla dogal na dégg nañ ko ci moom dañuy góor góorgóorlu mobiliser bu bàyyi yitte yëpp ñëw ànd koog moom ba mu jeex nee na loolu mënu leen cee fay di waxaat nit jigéen ñi ci kër gi mi ngi leen di sant bu baax ci seenu ànd ak seenu góorgóorlu ak doom yi nga xam nit yàlla dogal na tey boo tuddee euh, sëriñ Abdou Baaxe daanaka ba ki ci gën a doon gone tudd nga ñëpp kon ñoom ñëpp it noonu lañ ànde ñëw jàppale seen baay ci seen maam ji fi toog ah di santaat taalibe yi nga xam nit nag Euh, sëriñ lu moo daan wax naan lu fi nekk taalibe yi la kon moom it mi ngi leen di santaat bu baax ci xam ni lépp lu ngeen nekk rek lu mu nekk rek yéen nga ca te mi ngi koy gis bu baax waaye sëriñ Abdou Lahad yow day sëriñ bi nee na lépp lu mu la wax ak am na lu mu la desel ndax wolof yi nee nañ képp ko tuddee doom rek maanaam bañoo ko ndax am ci yow ay jikko yu baax yoo xam ne da ko xamoon ci moom wóolu ko ci moom tax nga tudde ko doom bëgg doom jooju jël ca jikko yooyu kon koo tudde doom rek bañoo ko waaye dañoo wax nit wala yi dañoo wax ni koo may soxna ak ku mën a doon nga yëkkati sa soxna sa doom may ko ko rek nee na bañoo ko ndax wóor na la ni ko boppam rek lay jur ndax ku jur doom nuróog moom kon sëriñ bi sëriñ bi nee na moom del mi ngi gën a yeesalaat ak taalibeem ci yow di la gën a déglu di la bàyyi xel di la ñaan nga ñaanal ko ci sëriñ du faadal mi nga xam ni jege nga ko lool nee na lépp loo xam ni dug taalibe mu sori ko lool lépp loo xam ni ak taalibe go mu nuur ci ba kenn dootu ko gis nee na lool daal lay sàkku nga di ko ko ñaanal moom nag sa digganteeg moom soow la ak suukar ak ndox boole naan walla boole tuur nee na it amul kenn ci àdduna koo xam ni kii mën naa toog maanaam ñu koy yab walla ñuy tudd saw tur waaw wala ñuy tudd saw tur ak ki lu mën a doon di koy yab yabel gu du jóge ci moom mu di ko fekk kon loolu mooy li ma waxaat ne ku la tudde doom rek bëgg na la nee daal moom lay déglu yoway way juróom ngeen bokk sëñ fallu digganteem ak alaaji baara ak sa digganteeg alaaji baara lum seere woon la lum xam la jataay bii nag kum neex na la wóor ni loo ci fas sun borom dana la ko defal te jataay bi du xóoma ku muy naqari ndax mën naa waat ni neex na Cheikh Mamadou Fadal man na maa waat ni neex na Alaaji Baara Mbàkke Falidu te loolu rek doo na sëkk kon nag wax ji lu mu gudd gudd rek lii moo ci am sëñ bi daal sëñ Moussa ngi lay dénkaat boppam di la dénkaat njaboot gi soxna yi nga xam nit ñu ngi ko tàmbalee ci soxna Khady Gueye mii fi teew euh, ah, soxna si Diop tamit ñëwoon fi tey Euh, sonu xujja di aju xujja nga xam ni moom ku xam aliya boo tu boo ko tuddee da ko ca boole. kon moom it sëriñ bi nee na mi ngi leen di beral cant bu baax di beral waa kër alaaji baare yi nga xam ni ay ay ndeyam lañ ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm nee daal moom sant na leen te xam ni lépp lu ngeen nekk mi ngi ci ndax lu mu nekk yéen a ngi ci. kon sëriñ bi daal say sa sa sa a ngi nii say taalibe ngi nii sa kër a ngi nii sa njaboot a ngi nii del loo digli nu def ko moom nag da daana wax euh, dégg naa mu daan wax moom sëñ Moustapha ni nun borom nopp yu gudd yi rek lan euh, borom nopp yu nag boo boo leen yoree nee na da boo sëfee ba noppi euh, nee na da ngay bàyyi mu dem waaye nag bu bu boo bàyyee mu dem ba mu yàgg nag da ngay wëriwaat boo bëggee sëf ñëw safaat ko waaw kon kon nee na foofu rek lañ féetee ñoom waaw moom daal nee na moom lenn lenn loo xam ne nii dana la ko ñooru wala wala lu muy lu muy lu muy def te yógu ko fas yéene ko ci addunam kon nag loolu moo doon wax ji nga xam ni moom moo am solo sëñ bi nag li mu waroon a li mu waroon a wax moom lu ci ëpp ci lu mu doon sant daanaka moor kase wax na ko ndax ab sëriñ dénkaane rek lay def kon dénkaan li moo jiitu ndax moor kase wax na ko lii moor kase wax rek mooy li leen sëriñ bi war a wax kenn ku ci ne bu xoolee ne la Mor kase wax de yëg naa ko te dégg naa ko ci bàmmeel ak ci digg yaak ci tere yaak ci lépp rek na ngeen xam ni sëriñ bii moom loolu rek moom mooy jataayam mooy tere leen ak digal leen te Mor Kassé tere leen ci loolu digal na leen te loolu moo waxoon ne nañ ko wax. ci jataay bi kon loolu mooy li ci am jataay yàgg na toogaay bi yàgg na waaye sëriñ bi daal moom nee na yow loo bég bég dég moom mii moo la gën a bég ndax xam ne fi nga ko teg xam ne ni nga ko jàppe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ Moustapha baax na lool yaatu na waaye ak njabootam dimbali nañ ko ci ci kër gi laa nekk man waaye li tàmbalee ci soxna Bintu Faal ba ca soxna Awa Buso ba ca soxna Ami Saar Sori Dan ba ci soxna ay Aysatu maanaam ñooñu di ay soxnaam nekk ci kër gi amul kenn ku ñu fi xatal du kenn ku mën a teg sa baaraam ci ni ñoo ma def lii mbaa ñu wax ma ko ñoo baax ca waañ waañ wa bu kenn dal li neexee ñoo ma ndax gan bu xiifee nganam day naqari xew woo dem xuloo bari fa dañoo yeex añ mbaa ñu xiif waaye kër sëñ Moustapha waxtu woo ñëwee xiiwal yaa ngi baawaan beneen bi ci tegu mooy njabootu boppam gi la tàmbalee ci Abdul Baaxi ba ci ki gën a tuuti amu ci ko soxor mbaa nga iñaan mbaa nga siis ñoom ñëpp ku ci ne bu ma nigoon ba trois heures du matin ku ma fëgg sa néeg mën naa faa fanaan ba ci seexu naa mi gën a tuuti barki dem maa ngi koy wax sëñ Moustapha ma seexu naa damaa dem abbu ko chargé di ko ko delloo dugg ci néegam fekk lal ba fees ci suuf fees ñoom ñëpp ñu tëdd ñu koy yéem ma ne ko nag <laughs> jarul nga koy yéem ndax yow ba ngay toll ci di joxe dépense di uuf bari fii ci Touba. bari na fi kilifa yoo xam ni kër Cheikh Moustapha la ñu jaare ah sëñ naa moom sëñ Abdou Wadoud moom daanaka ngërëmam mooy ngërëmu lislaam ndax moom day jëmm joo xamante ni li ma doon wax léegi nii doomi soxna sëñ Mourtala moom sëñ Abdou Fatah ñooñu ak jëmm ju baax jii di Lamp Fall moom Ibrahima Fall moom sëñ Sallou maanaam waxtu woo wu ñu nee sëñ Abdoulaye mi ngi gane si Aliya bokk yi ñooy gën a yàkkamtee ñëw. njabootu alaaji baara góor ak jigéen ñoom ñëpp kenn ku ñëwul am xelam bugg naa ñëw lan moo ko waral sag baax sag woyof ak sa am njariñ su ko defee nag mbakke fi may daane rek sama kàddu mooy nit day am jom ku ñàkk jom bul moom nit ku amul jom amul solo ba fi sëñ Fallou jógeek léegi njaboot gi lu ñu fi am seen jomi bopp moo leen ko may ndimbal nag lu ñu la dimbali dimbali dimbali nañ ca fekk sa loxo léeg nga dégg dof boo waxi nit dof bi dafa toog ci garabu penc mi dégg ku ni ndimbal da nga cay fekk loxo borom dof bi ne ko wax nga dëgg de man de keroog ba sama tubay ji lakk la ceeb maa ko fay bu yeexoon musiba am daa am loo xam ne doo ci xaar kenn kon mbàkke na ñëpp tàllal seen i loxo sëriñ bi ñaan fas leen ci lu ngeen bëgg amin jërëjëf Mbacke jërëjëf